ci ci ci monde théâtre bi ñu ko wax Azou Beau mu tudd su ma Il Assane la tudd nekk euh, di jouer rôle bo xamni jouer personnage personnage bo personnage bi personnage homosexuel la quoi loolu ci ñu bëgg ñu waxtan légui nag gis nañ ko mais apparaître encore ci scène bi benen bi euh, une autre vidéo bo xamni bu sensibilité bo xamni euh, sais pas ben artiste bu wax ñu gis ko aussi clip bi nekk clip boo xam vraiment ñu ngi koy gis mi ngi ci ay presque ay millions de vues euh, wane ci ay cëri wala ñu def ci scène yoo xam je pense que loolu aussi ñun suñu devoir la en tant que en tant que nitu de valeur en tant que comité de défense des valeurs morales en tant que anti sàmm jikko yi ñu euh, rappelé waat alors tegaat affaire ici si yoon ñu bañ a moytu sa mboxloo bi ñu moytu aussi tamit di di di di di wax teg affaire ici en fait si ni mus a taxaw damay commencer d'abord abord ci ci ci Azou le Beau Azou le Beau benn comédien la boo xamante je pense que dinañu xol vidéo bi jëmil may ñu ko ñu dem vidéo Le euh, te ñew ñëw ku la gis. xam ñaw des naw xam ne. waaw waaw <laughs> waaw. Eh, ba di la xam. may bu jëla xam neex ko ñaga ma bu ji la. allah allah allah.

personnalité bi muy prôné c'est l'homosexualité manam nit goor jigen la ci biir société sénégalaise euh, ah, waxu ñu goor jigen la xam nañu dafa am personne am personnage am personnalité xam nañu li personnage de bu muy incarner ci lima yaakar mais dafa am lo xamni je pense que baax na ñun tamit ñu laajante ko biir suñu biir moy ñun en tant que sénégalais suñu société que ñun accepté wuñu personnage bi muy bëgg incarner incarné suñu biir société euh, que ni da dafay heurter suñuy sensibilité

dañ koy xeex ci xeetam yépp nag ci toutes les formes amul benn angle bu ñu koy bàyyi moo tax personnage bi mu bëgg incarné ci monde théâtral ci monde comédie comédie bi nga xam moo am Sénégal ñun duñ ko accepté parce que dama wax ni njànku on l'aime bien man j'aime bien la comédie euh, on aime bien euh, euh, yeneen gars yi man j'adore Tafa Touré xam nga c'est des gens yoo xam man je les aime man mënuma ñàkk toog seetaanuma Abba non stress Abba j'aime bien la comédie mais ñun bëgg nañ comédie dañ koy bàyyi xel mais dañu né dafa am lo xam bokul ci comédie bi parce que parce que comédie fi muy ag mo grand dafa am terrain day yegg fu grave surtout ci xalé yi quoi te personnage bi nga xam ne bo mi ngi ko bëgg a présenté luy yàq suñu crédibilité la luy yàq image du Sénégal la luy yàq suñuy doom la góor jigéen bokul ci suñu société góor jigéen fa féké amna fi deug la nangu nañ ci la bokk mais ku ñuy médiatiquement du kuy promouvoir du ku ñuy nangul ñun nangul luñ ko te dañ koy xex diine nangu ko suñu valeur nangu ko len nangu ko dañ koy xex

te bëgguñu dara seen kaw parce que xam nañu liggéey bu noble ngeen di def di ci xarmat di di ci góor jigéen te lii de promouvoir homosexualité donc ko nag mu ne euh, si plateau mu ne góor ñu ngi koy woo di ko financer xaalis bu bari ñi di ko accepter kii mais koy xeex donc na ko bàyyi wala sinon dinañ jug dal ci kaw donc message bi daal loolu la ci mu ngi noonu gis a a baax lii du lu ñuy promouvoir donc message boobu daal laa bëggoon vraiment si Azou et que di leen di di di ñëw benen vidéo bi ma ngi wax ci euh benen vidéo dama wax ci euh, un artiste kat la bo xam bi mu génnee aussi yag génn yagul euh, am talent euh, dem dugg ci le monde bi nga xamanteni def ay vidéo yo xam day heurter suñu sensibilité may waxat rek fima nekkon ci début bi laay waxat rek en tant que samba en tant que nitu de valeur en tant que comité défense des valeurs morales en tant que ardar, en tant que nitu valeur en tant que nga xam Sénégal dañ ko a ci image yi nga xamante ñun suñu état ñu dem ñu devoir ci vidéo yi nga xamante mi ngi daw image yi nga mi ngi sensibilité di yàq suñuy doom Imagine, yi ndaw en ngeen parce que on parle de ça est-ce qu'on a besoin est-ce qu'on a vraiment besoin de ça est-ce que nañ vidéo la vidéo bu wax ñu non vous faites la promotion non non non c'est-à-dire vidéo amna promotion ba paré liñ bëgg moy li ni ñun lepp lu ñu xam nañu sénéra préparé une marche Une marche pacifique pour xam dañuy pour Obélisque dox ba buntu pour dem ba buntu ARTP dem ba taxaw ak ñom wax leen li nga xam ñu koy sétane muy ay image vidéo bi nak la jital ko wax ne ko nak dinañ duggal plainte bi en dina

moy wax ji ma waxoon rek à force de voir le mal ça devient banal waruñu sagane li nga xam dañ ko wara war mal nëbb ko Sénégal dafa image il faut mo am ñu juk taxaw diko sam pour Sénégal rafet il faut mo am ñu juk diko sam pour Sénégal ba ñu mujj ci yàqu-yàqu donc message bi la laa moy wax euh, di wax gaay ne képp ko xamanteni vraiment gis nga ni Euh, liggéey bi ni liggéey bu mucc ayib la ci loo war a jàpp la loo ci mën a jàppee ci média bi loo ci mën a jàppee ci côté lépp rek nga dimbaluñu si euh, ñu ngi lay ziar di la béggee di béggee ñëpp di leen booy leen wax ni buñ ci gaawul dindi ko ñun dinañ jug def suñu devoir dal seen kaw dem fi ñu war a dem yëpp porter suñuy plainte def suñuy démarche taxaw si taxaw boo xam ni loolu du leen arrangé te baaxul si ñoom artistique artistiquement jërë ngeen jëf wasalaatu salaam ala rasulullah